jëmale ca Sud Quotidien njiitu réew mi kay mujj naa dalal nag ñi nga xam ne ñoo di rëkkale yi yéenekaay bi di peeko les secrets d'une audience lu jëm nag ci tuxal élection présidentielle yi andi na ci ay leeral moom Pape Mamour Sy di enseignant chercheur ci wàllum droit en constitutionnel coow lu nar a juddu loolee nag la yëglekaay bi di enquête fësal ci xëtam bu njëkk jëm ci taxawaayu kujje gi ginnaaw audience bi nga xam ne rek dalal nañu leen ko ca palais ci seen diggante ak président Macky Sall yéenekaay bi di xamle ne nag dialogue bu njëkk ba moo ñetteelu ndaje mi nag boo moytuwulee mooy li nar tasaare ñii di rëkkale yi yéenekaay bi di enquête nag dellu siwaat ba tey ci rëkkale yooyu nga xam ne rek dañoo bëgg a régler nag ab fay loolee nag la yëglekaay bi daal di fësal ci xëtam bu njëkk mu ne audience ñu amal ca palais nag sàkku nañu ca de la république ngir ñu daal di bàyyi kii di Bassirou Diomaye Faye may ko nag ab liberté provisoire maanaam bàyyib néggandiku rëkkale yooyee itam sàkku nañu nag ñu daal di jooyantiwaat lépp lu ñu jàpp ne ay rëq-rëq la yu am ci wàllu fichier bi rapport bi jëm ci wàllu élection yi nag bokku ca lañu waxtaanee ci seet ndaje moomee nag bu ñu sukkandikoo ci Vox yi des ba tey ci ndaje mi dox ci diggante rëkkale yi ak njiitu réew mi nag lum ci mënti doon élection yi war nañ koo amal daal di respecté nag lu jëm ci calendrier électoral bi kàddu yooyee la ca Cheikh Bamba Dièye daal di xamle ginnaaw ndaje mi yeneen i ñaxtu yoo xam ne rek bekki nañu ko ci kaw taabal ji bokk na ci ñàkk bokkub Karim Meïssa Wade ak Ousmane Sonko ci les élections libération jëm ci candidat bi di Bassirou Diomaye Faye ak yeneen i détenu politique loolee lépp nag rëkkale yi jàmbat nañu ko ci kanamu njiitu réew mi ci biir yëglekaay bi ña xam ne nag ne bu ñu demee ba mën a janoo ak société civile bi ngir waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci biir réew mi nag kon war nañoo mën a gisee ak njiitu réewum Sénégal waxtaan ak moom ci seeni bëgg bëgg-bëgg Amsatou Sow Sidibé Cheikh Agibou Soumaré ak Bougane Gueye Dany ñoom nag ña ngay xam ne ni ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection présidentielle yi l'observateur dellu soit ci ndajeem démb mi nag xam ne ni daal boo moytuwulee nag njariñ lay doon ci président Macky Sall yéenekaay bi ne waxtaanee nañu fa nag ay ponk yu bëree daal di saytuwaat lu jëm ci wàllu parrainage bi waaye tamit libération jëm ci Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak détenu politique yi nga xam ne rek jamono jii fees nañu dell ci kaso yi yéenekaay bi di las di peeko le coup de garde ginnaaw ndaje mi dox ci diggante président Macky Sall ak candidat rëkkale yi bés bi le jour ne lum ci mënti doon daal lii xeeñ nag neexul benn yoon ci bile collectif ginnaaw ab lettre audience boo xam ne rek bind nañu ko président Macky Sall Bamba Dièye moom ma ngay xam ne nag ne élection yi moom kenn du ko tuxal ci biir yëglekaay bi jamono ji nag seetloo la ñu gën a nemmeeku ci kaw kujje gi Bougane Gueye Dany muy dal ci kaw Mimi Touré Walf Quotidien dellu siwaat ci candidat bii di Pape Djibril Fall moom candidat bi nag ma ngay xam ne ni daal xeex bi gën a am solo mooy wàllum souveraineté Pape Djibril Fall ne daañu fexe nag def ay jéego ba mariage entre jeunesse bi nag ñu daal di koy gën a jëmmal boobee yëglekaay taxaw ba tey ci lu soxal élection présidentielle ci atum 2024 muy xam ne nag ne ndaje mi nga xam ne amal nañu ko ca palais na ay jafe-jafe ñii nga xam ne rek ñoo di rëkkale yi addu ci leneen mu soxal Soleil yëglekaay moom nag ci ñaareelub tour bu kaan football 2023 bi ci la xëy tey jii nag yéenekaay bi ne Sénégal nag dina fas yéene janoo ak waa Côte d'Ivoire ngir nag jongante lu jëm ci wàllum huitième de finale yi Rewmi Sport dellu siwaat ci Jamel Belmadi yéenekaay bi ne nekkatul sélectionneur bu Algérie ba tey ci stade CAN 2023 yéenekaay bi ne juróom-ñetti bii la ñu am ci phase de poule gaynde yi nag ña ngay woy di raglu ca biir Côte d'Ivoire sunu lamb xëy dellu siwaat ci combat bi war a dox ci diggante Boy Niang bu ndaw ak Zarko ñeenti fan lay doon ci weeru février jeexale yëglekaay yi ak libération kàddu yi nga xam ne rek Abdou Mbaye na ko ci kanamu enquête kat yi moom Abdou Mbaye nag moo faatoon Abdou Diaw ginnaaw bi ñu ko tegee loxo nag moom Abdou Mbaye nag la mu xamle bokk na ci dafa soupçonné Abdou Diaw nag muy séq mbirum Nobel ak jabaram loolaa waral nag mu menacé woon ko samedi ji ñu weesu altine ji joojee nag ca la ko faat autopsie bi nag la mu fësal bokk na ci ab Abdou Diaw moomee faat bu ñaaw la ko Abdou Mbaye daal di faat mbokk yi li gënoon a fas yëglekaay jàmm ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénégal.